bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa shafiicina wa mawlaana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ixwatil imaan mustamicuuna alkiraam macaali alulamaa asaaba saada asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi tedd yi nuy déglu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar di leen baluwaaq di leen balaaq di ñaan yàlla yal noonu yàlla boole jéggal Sud FM seen rajo 98.5 kaddu gi bàyyi ko fii ci Ndakaaru dellu si waat nag yéen seen émission bi ñu tuddee jaar-jaar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam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 yal na yàlla gën a aaral boppam yal na yàlla doole lislaam dooleel ñiy dooleel lislaam képp koo xam boo amee doole lislaam am doole yàlla na nga am doole képp koo xam ni boo amee doole lislaam du am doole nag yàlla boo am doole yàlla sàmmal ñu sunu mag ñi kilifay diine yi bàyyi leen ak seen sago bàyyi leen ci kanamu njaboot gi ndax kilifa gàllaaj la yàlla nuy sunu muur ñuy ñuy seen muur te lépp de ndam di jàmm di bénéfice ci diina ji di jàmmi réew mi jàmmi askan wi yàlla sañ na ko mën na ko yal nanu ko yàlla defal noo ngi ziar ñëpp di baal ñëpp di balu ñëpp àq yàlla jàmm yàgg yàlla jàmm sax xam ngeen ni ñu ngi woon ak yéen ci mois bu naafiya tey mooy sunu ñetteel bi épisode nga xam ne ñu ngi woon ak yéen ci laka rujuuci laka rujuuci maa aljumuuci bi xayri juucin wala xataayi sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala nee na laka rujuuci ci yow lay dellu si maa jumuuci maag sama mbooloo bi xayri juucin ci lu àndul ak ab xiif wala xataa ci lu àndul ak benn yàqu-yàqu <clears throat> lakaltifaat yi ci yow laay geestu jëm yaa salaati salaat yow mi borom jàmm ji baada salaati man nag fu ma sëlmalee sama julli maa maa nga tëdd la tagg rek radiitu gërëm naa la faw abadan daayi man dappet bi nasiitu ci law laay askanoo yow laa jëm si kama comme ni ma woomale comme ni ma woomale anil anaa yi walif ay coono woomalal nga ma ba ma woomal te woomal gi gën ci woom yi mooy woomale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi woomeel sama boroom yàlla mi dul jeex du dëy du ŋacc ku woomee ci moom raw nga ñi woomewul ci moom moo tax sëriñ bi nee na yàllaa ma woomal woomal naa ba doyal sëkk soxlaatuma leneen feneen anil anaa ay walif ay coono te àndul ak ay coono ndax mënoon naa dem ba am lii ñaq tooy xëpp dootuma ko tal mbaama daw ci fitna ak ñu naan budu koon ak nangam waaye neex gu ma neex yàlla neex gu ma neex ndawam li muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci laa am koom-koom moo xamante ni àndul ak benn coono moo tax mu ne ko lakkamti daahi sama tagg wi ñeel na la yaasal salaax yi yow mi borom jàmm ji yaasal falaax yi yow mi borom texe gi yaasal xanaa yi yow borom koom bi yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Tuubaa nee fii ka unaadi ci yow rek lay woote jëm bilaa di ci bépp réew li sil ibaada ñu wuy si boroom jaamu ga te moo yonent bi sallallahu alayhi jaamu gu rëy ga lépp lu waay di jaamu symbole rek nga def pour ñooñ man koo aj te jaamu gi nga xamante ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko jaamu boroomam waaye ñun mënuñoo jaamu yàlla kem kàttanam mënuñoo julli ci yonent bi sallallahu kem kàttanam moo tax ñu ñun yàlla yàlla nii julli leen muy symbole ci ki nga xam ne moom laa gërëm nam ma jaamoo julli leen ci moom ñu ni ko mu mel ne dañ ko ne ñun mënuñoo julli waaye kon yow yàlla julli ñu xàq qadrihi yow mi xam dayoom mu ngoog moo tax mu ne sam euh, fii ko unaa di ci yow laay woote woote wu ma jëmbale fenn kenn orienté wu kenn di la wan lenn lu dul rasulillahi sallallahu alayhi ak alxuraan ji ak diinam ji waaye woote ngeen kulul bilaad yi dëkk yëpp laa ci woote réew yëpp nag penkook ak sawu bët saalum bët gànnoor yéen ñëpp laay woo lisil ibaadi ñu wuy si boroom jaamu ga ka ak jaamu yàlla ba sunu borom rafaatal ko mbindee fii baanil ximaad yi ka aji tabax asamaan si koo koy sunu borom moom mi tabax asamaan tabax suuf si dénkuñu ko ni suuf téyel ma sama jaam yi ak luñu yor lépp mu suuf téyel nu ko kii def loolu kooku te la ñu woote jëm kooku la war a xam ku mu doon mu ni ko fii ka maxawtu ci yow laay ci far maa maa xat janaytu la nga xam ne juumoon naa ko bi may ndaw fii ka ab xaytu ci yow laay sàkkoo àgg mu ngoo xëyra na maa yi gën jëndoo lente ci yow laay sàkkoo am gën ji lent xam nga sëriñ bi mbaaxam ak bëggunoo dimbali mooy tax mu ni euh, fii ka xawtu ci yow lay fa sa koo far maa janaytu la nga xamante ne juumoon naa ko ci ba may ndaw waaye ku ne xam ne moom amul jaar jaaruk ndaw ku ne xam na itam ni euh, li ndawi jamono di def ak cër bi ko yàlla joxe fi mu jaar loolu mucc na ca waaye ñun lay bëgg dimbali ci ñaan gi ndax boo bu sa bu bu xale dawee làqu ci yow nga bëgg a tinu ko ci ki kay dóor mën nga ànd ak moom ni ko maag xale bii ñoo ngi ñoo ngi lay yelwaan nga sarax nu te jéggal nu tin ñu léegi nag comme boole nga sa bopp ci tinu gi mën naa mu yombal tin gi mu am mu yombal baal gi moo tax mu ni fii ka maxawtu ci yow laay sàkkoo fare maa xat janeytu la nga xam ne juumoon naa ko may ndaw fii ka ab taxaytu ci yow laay sakkoo itam xayra namaa i ngën ji ndollent fii ka zahaab yi ci yow laay deme fii ka iyaab yi ci yow laay dellu see bilaxtiraab bii ci du lugtu muranke lakamti maa yi sama lépp ci yow laa ko wéer zëh zëh taa bii jangal nga ma samay ayib xotta janaa bii tegal nga ma samay wàll bilaa kaa bii ci dul ay coono wala haba wala haba yi ci lul ànd ak benn pochère xam nga nit mën naa am lëf ca yàlla waaye baqataam génn mu door koo am wala chance dëgg wala saxlu ca àgg waaye lii mu wax lépp ni ame naa ko ci borom bi subhaanahu wa taala te jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sangam loolu lay gaaral di ñu wax ne moom lii lépp mi ngi ko amee ci borom bi subhaanahu wa waaye ci daraja ak barkeb ki nga xamante mooy buntam ci loolu la ko ame mu ngoog sëriñ tubaa nee na <coughs> yaa xayra maahin yow yaay gën ji far bàkkaar yi maha janaaxi faral nga ma samay bàkkaar maal mazaahi ànd ak samay jaaxaan waxta sabaax yi ci sama waxtum ndaw gis nga moom laa lay moom lay dëggalaat nii sama waxtum ndaw yàllu yàlla yaay ngën ji far bàkkaar kon tooñkat bu nekk mën nga koo tooñ jéggalu ko mu bañ laa jéggal mën ngaa jël ku nekk àqam mu di la ko topp ba mu des borom bi subhaanahu wa taala ndax ëppaat le na moom ak di toppanteeg jaamam moo tax mu ne ko yaa xayra maahi yow yaay gën ji far bàkkaar ya maha yi faral nga ma samay bàkkaar ma masaa yi ànd ak ba may jaaxaan man ba may gën di nekk ndaw lu lu nekk nag nit mën na nekk ndaw juum moom la ñuy yóbbaaleel nii nekkaatam sunu avocat mu ni waxta sabaa baax it ndaw anta habibi yow yaay sama soppe yaa man habi yow rek yaay yaay ki gën ci soppanteel yow yaay ngën ci soppanteel yow yaay ki may soppanteel bilaa uyu ci lu dul benn ayib wala sibaa yi ba duma xaaraane kenn mu ni yaay sama soppe yow laay soppanteel te defal nga ma lee jégal nga ma ko ba pare te ci cadre sopp gi ma la sopp ak soppante gi may dàqante yow di la ko sopp bëgg nga sopp man ni ma la soppe loolu àndul ak benn ayib ndax yow kese yaa ne sama xol yow laa bëgg ci yow lay xëy ci yow lay gont soxlawuma leneen soxlawuma keneen soxlawuma feneen moo tax mu ni bilaa uyu bi ci lul benn ayib walla si yi waaye nag fay nga ma wuyu nga ma jox nga ma ba dootuma xaaraani kenn yaa xayra waayin yow yaay gën ji aji sàmme maanaam yow yàlla sa gétt mooy ngédd loo xam ni xar mu fa dugg till mucc nga ca moom mucc ci bukki mucc ci ab xaj bu génn mu ni ko yaa xayra raayin yaay gën ji sàmmoo yaay sër bi bi nga xamante ne moo man sàmm moo man sàmm te du ruur te du tuur reerub jaamur loolu la ko wax mu ni ko yaa xayra daay yaay gën ji aji woote sa woote yow rasulullahi sallallahu alayhi moo gën ci woote bu nit musa woote nit woote bu mën a woote yaa ayyuhal lazina amanu udxulu fi silmi kaafa wala tattabidu xutuwaat loolu kiira kaaraange goo xam ni moom dong moo ko musa woote te keneen du ko woote moo tax leneen lu waay woote bu wootewul lii mën na caa na amul njuumte te yaa ngi woote nag li si samaa yi ca ka xam mooy boroom asamaan yi yaa ngi woote jëmee ci moom moonu moom foo woon nit jëme ko fa boo ko jëmewul ci yàlla nax nga ko mbaa mu nax boppam kon woote jëm ci yàlla rek lem solo mu nga wax ni salla alayka yal na la yàlla dolli xéewal bi man la dayka ak ñi nga xam ne ñoo nekk ca yow musnin alayka sama tagg wii alayka ci yow rek yaa ko yeyoo tagguma kenn wayuma kenn génnew mbaaxu kenn mus nin sama tagg aleeka ci yow képp la jëm ci yow yam ci yow inda rimaa yi rawatina keroog ba sunu borom subhaanahu wa di la tagg ca xare xare bu metti woon ca xare badar ba te yàlla naan wama ramayta is ramayta walakin allaha rama keroog laa xam ne yàlla naan ko gàcce ngaalama yaa yaa am kilifa ndeke am kilifa rek lem solo ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett jànkonteeg junni nit ñu manqué téeméer dem ba seen ngànnaay jeex seen ndox jeex ñu wër ngër leen këpp sunu borom ni ko tibbal ci suuf si sànni mu tibb ci suuf si sànni suuf soo soppali ko ca la meer soppali ko ngelaw dugg seen bët yi leen dàq ñuy daw sunu borom ne ko nag maa la walloo loolu maa la feeloo loolu wa maa ramayta sànni woo is ramayta kër ba ngay sànni walakin li fi nekk allahu yàlla rama moo sànni kon yàlla moo dàq yéefar waaye ku ku kontaanul ci sëb surga doo ko defal loolu ku gërëmul sa surga doo ko defal loolu ku bëggul sëb surga am ndam ci kër mi noonam doo ko defa loolu moo tax Sëñ Tuubaa ni ko mus ni naa lay ka sama tagg yu ma lay tagg xeeb naa ko waaye nag maa ngi ko wékk ci tagg wala sa borom subhaanahu wa taala taggoon indar ramaa yi ca keroog ba nga xamante ni yaa ngi naa ko maa ramayta is ramayta walakin laa rama aleyka sallam xéewal ak jàmm yal na ko yàlla def ci yow daaban wa karram daaban ba faw ànd ak tedd nga man bi ka azam li nekk ci yow te màgg ñoo ngi koy màggal ahlu timaa yi way tànneef ya li nekk ci yow te màgg rëy lool ba yàlla màggal la ña koy màggal yow ku la màggalu tam yàllaa ngi lay màggal malaaka yaa ngi lay màggal ahlu samaa ngi lay màggal ñi yàlla gërëm ñëpp ñu ngi lay màggal moo doon li nekk ci yow ku ko xamul ba tax mu ginnaawal la mbaa mu ñàkk laa topp mbaa mu ñàkk laa gëm affaire ama waaye ahlu timaa yi waaye tànneefe ñoom ñu ngi lay màggal sëñ Tuubaa ni ko bi ka aquudu ci yow laay womatoo jëm bi ko uf ko uf du ci yow laay jariñoo ci yow laay jariñe bi ko uf yi ci yow laay jariñoo waaye itam ci yow laay jariñe man sama njariñ njariñal bopp génn la sama njariñal bopp la waaye ñi ma yaakaar itam li ma leen di jariñ ci yow lay jóge moo tax ko bi ko uf du yaa man yesuudu yow yaay sang bi sawistifaa yi boroom tànneef ya zawil uquul yi ñooñaay boroom xel ya nax ja rasuul ndax ñooñaay ñeyoo ña ña la topp dafa ne ko ci yow laay jëriñoo ñi ma yaakaar ci yow yaa ma leen di jëriñ li ma leen di jëriñ ci yow laa koy jëlee ndax yow yaay sang bi yàlla gërëm loole tax na it sa yi boroom tànneef ya ña yàlla tànn mooy ñi dul def bàkkaar di di di ay malaayikaam di ay tànneefam ak ñamu ña ñu ber ak ñi nga xamante ay nit lañu te ànd yow ci liggéey bi zawil uquul yi ñooy ñooy boroom xel yi ndax am xel paasewul diine ji mujj ci asamaan nga fekk ko yàlla ubbi sa dënn nga nangu ko téere bi gën ci téere yi yàlla ubbi sa dënn nga nangu ko nangoo topp nangoo jëfe tey bàyyi tere nee na zawil uquli xel mënta paase waaye gàtt xel ak ak ak cuune mu ngi ci gëmm ak dummóoyu ki yàlla tànn tànnal ko boppam gënal ko ba mu gën mu jël diine ji gën ci diine teg ci loxoom ni ko wooteel jël téere bi gën ci téere yi muy alquraanu karim jox ko ko muy nabiyu aaxiru zaman di yonente aaxiru zaman mu nga fekk ka fi am xel dara daru la sa xol lëndëm ba nga dumóoyu ko lànkal ko nee na loolu njuum te mënu koo paase te ak gàttu xel ak cuune mënul paase loolu waaye ñu yàlla dimbali ba ñu mën a topp te loolu kay ñooñu ñooy nax ja rasulin ndax ñoo ñaay ña yayoo ngërëm ndax ñoo ñaay ñoo jaar ci ngir bi yonent bi sallallahu sëñ Tuubaa nee na maahil xafuuli kii ma lay wax nii nga xam ne moom la yàlla ràng yii teraanga kooku mooy far mooy moo far càggante càggante gi nit ñi nekk woon ak réer ak ngëlëmte gi ñu nekke woon kookoo ko fi jële ba mu set wicc maahil xafaa yi kooku moo far ak rag ak ak ak ragal ragal gi nit ñi nekke woon jël ay buur teg leen ci seen kanam lu ñu leen def loo ñu def loo ko bu ñu la jëlee paaka sax ne la rendel kii nga antan koo rendi ngir ragal ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko fi jëlee indi fi égalité ñëpp mu toogandoo di sukkandoo ci ndab di lekkandoo dem ca kaaba ga ñu dendandoo ngay ku ñuul kii du ko xees démb nga def jaam moom mu def sang tey ngeen àndandoo di wax ashhadu an laa ilaaha illallah ëppale wala dara ndax nit la yàllaa ko def mu xees yow ngay ku ñuul mu mu mu. mu xeebale woon ñuulaay nawee ba ba xeesaay ki fi ki fi jëlee loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ni maayil xafaa yi kooku moo far ak ragal gi nit ñi woon démb sawi zakkaa yi ñoo ñaay ña yeewu ña teel a gëm lislaam teel a ànd ak lislaam Sëriñ Tuubaa ñoo ñaay ña yeewu li sil bahaa yi moo tax ba nu yeewoo tam jëmuñu fenn dañu jëm ci borom taar ba borom taar ba mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maayil xataa maayil jafaa zaakal mu taaw zaaka sujaaw bi hiiraaw sëñ Tuubaa baax nee na maayil xataa yi kookay kay far bakkaar maahil jafaa yi kookay far béccëngal zaakal mu taaw kookoy ki ñu war a topp zaka shujaawu kookoy jàmbaar ja bihi yuraawu ci moom la ñuy ti ci moom la ci ñoom ci moom la eh, topp waaw maanaam ci moom ci ci moom la ñuy rëgëtee rëgët mu ngoog bihi ci moom la ñuy tiitale zawil ibaa yi yéefar yi nga xam te ne dañoo bañ diine yéefar yi bañ diine bañ ko foofu waxi lislaam ci daraja Muhammad sallallahu alayhi wasallam te lañ di ci lañ leen di tiitale ndax lislaam indi loo xamante ni daf leen a tiital su ma gisee mënuñu koo xajoo mënuñoo xajoo koy wax yàlla mënuñoo xajoo ku yiw xanaa ñu ragale la mbooloo mbaa ñu ragale la ak kurus mbaa mbaa mbaa loola tey bu dul lii rek ñoom ci Moustapha rek lañu bañ ku ko wax moom rek lañu ragal ndax moo leen gën moo leen gën li mu yor moo tax ñu la mboolem yi ñëwoon yépp avant l'islam dañoo échoué l'islam dong nga fi taxaw di exister ba léegi te pexe mu nekk nag ñu ngi koy def ngir faas ci xoli jullit yi te xaalis la jël ak pouvoir di ko jëndee nit ñi di di ko raxas ci xolu nit ñi pour nit ñi mën a bañ a gestoo ci lislaam maanaam nituk diine ci moom mënta paase lu may doon imaamu jàkk mbaan bilaal buy nodd ci jàkk ja waaye mboolem li réew mi doxal mbaa lu réew mi wax duñ lañ te boole duñ leen te laaj xalaat xanaa kilifa génn àdduna ñu ne na ko sëriñ bi jullee mbaa kilifa génn àdduna ñu ne sëñ ba ñëw ci cérémonie ba loolu ñuy doyee loolu daal mooy la nga ne moom soxla nañ ci nitu diine waaye mbooleem li ñuy def lépp lépp lu ñuy tàggu diine amu ci lu ñuy laaj lislaam xalaatam amu ci mu ngoog moo tax sëriñ bi nee bii ci Moustapha Moustapha mii ba mu ñëwee ci moom la ñuy tiitale zawil ibaa yi yéefar yi nga xamante ñoo bañ diine de saakal waliyu kii ma lay wax nii kooku ay ka méngoo yëf yi saaka na ji kooku moy deyaay la nu yàlla ba saaka safi yi ka ñu tànn zawit ti bàyyi mooy borom mayu kawe ya saakal xasiibu kookaay gorsa saakal nasiibu kookaay borom askan wa askan wu rëy wa saakal ajiibu kookaay kay yéem ñëpp baadil xibaa yi moo feeñal noonu yàlla yi doon nëbbutu di di raaxaloo nit ñi ngir ragal jaasi lislaam ak ragal sànjas lislaam daal ci seen kaw tax ñu ñëw raaxaloo nit ñi ni ay jullit lañu fekk doonu jullit bu ñu wéetee nekk seen bopp di def lu leen neex di jalgati bu lislaam taxawee kilifa yi lislaam taxaw ñu raaxaloo ñoom sol mbubb nuroog ñoom waaye lu lislaam yàqule lu lislaam yàqule ñooma fu lislaam amee lu ko naqadi ñooma fu lislaam xeeboo ci koñ mbaa fu mu fa néewee doole ci koñ rek ñooma li ñuy tabax lépp du ko def doo dégg ñu ni lislaama moom fii doo dégg ñu ni lislaama tax ñu bàyyi espace bi doo dégg ñu ni alxuraan tax ñu defar fii ba mu taaru ngir màggale ko kàddu suñu borom gi ak fésale ko suñu njulit doo ko mos dégg ci réew yëpp nag suñu bos ak meneen réew ci yëm coow li coow lépp fay lislaam coow dëgg réer te fay gi yëpp nag yoon wi nu jaar ngir jéem koo fay mooy fexe ba nit ñi dootuñu jàngal xuraan dootuñu ci am benn cofeel dootuñu ci am benn lu ñu jëm xanaa jël àdduna feesale ko suñu bët yeeg suñu nopp yi di ñu naxee loo xamante ni yóbbuwuñu fenn tabaxul jumaa tabaxul jàkk demul màkk demul umra ñu jël ko na tekk ci muy middum àdduna nag ñu dey xëccoo gu guddeeg bëccëg di ci di ci xeex guddeeg bëccëg waaye ñi am fulla ñoom xam nañ ne àdduna waraakoon la moo tax ñu ne ko fi kupp bàyyi ko ñi mu doy ak ñi ko bëgg xam ne lu mu yàgg-yàgg rek bis na jot ñu gas mu xóot suul la ci biir rek ñëwaat toog nga lijjanteeg sa borom ku xam loolu nag da ngay teel a yeewu mag ñi kenn du ànd ak ñoom ci maa la bëgg ak maa la gëm goo xam ne doo jéem a xam li ñuy wax lu mu doo xam li ñuy woote lu mu seen combat ak seen système doo xam lu mu mën a doon mag nga fi dégg ñépp seen combat mooy fexe ba nit ñi dooni jullit dooni ay gor dund lislaam même bu suñu réew lewagul moomunu ko nga xam yenn constitution yi wala yenn atte yi mënagunu ko wax mbaaba buñ ko waxee duntam la nu gënal kenn ku ci nekk nga fexe noo ko dunde ba keneen ku dul moom du la saf dara am du la saf bu leen bàyyeeg ñoom li nu yor rek te téye li nga yor bu yàgg dana no xam ni ñoom ñii nekkuñu ci dara waaye booy buuxante ñoom ci li yor di nga xëccoog ñoom gën leen ko bëgg mu jaral la lu nekk ñu nax la foye la foye sa diine nga jël nag ab përëm nag wecc kooka ab or mbaa jamaa booy daje ku xam dana xam ni yow mi def nga lu kenn dul def loolu la moo tax bi nee na zaakal ajibu kookaay kay yéem ñëpp baadil xibaa yi moo feeñal noon yàlla yi doon bux buxol ak dina bëtu wax wan nafiisu kooku ay kam valeur falaa taxiisu waaye bu leen ko gam-gam leeg leen du moroomu kenn wax war raisu kooku mooy njiit njiit yi ñu tànnoon nit ñi ñoo jiitu ci yonent yépp yëpp ba Moustapha ñëwee dañoo topp ca ginnaaw xam ni mooy njiitu ñépp Sëriñ Tuubaa li wax nii mbokk ma la ca Tiwaawoon di Mawlaana Seex Haaji Maalik loolu la wax dafa ni wa xalqu laxlaaqi wa baasu lanbiyaai li zuhurihi muqaddimatun faalam wala tanami combat bi nu bokk gis nga nekk kenn ku ci nekk rek yaa ngi yaa ngi def loo mu sa man ngir dimbalu na ñun ndax bu doon ñoom donga mucc nañ ci iblis mucc nañ ci seytaane ndax xeex nañu ak seen bakkan jihaadu nafsi ba lislaam mënul ci ñoom dara maanaam ba seytaane mënul ci ñoom dara mënu leen yàqal dara dara dara problème bi kay mooy ndax nun daanu jéem a liir mbind mi wala ñu liir message bi ba xam ñun lan muy suñu cër ci wàll wi ak ñun lan lan war a def moo tax Sëriñ Tuubaa nee na waxoon na fii su kookaay ki am valeur falaa bu leen ko gam-gamal kenn wax war raisu njiit yëpp ba ñu ñëwee ka jiitu ba Moustapha ñëwee daa topp ginnaaw li lan bi yaayi firikati gàmmu yi dañuy wax ni il y cent vingt quatre mille prophètes ñaar fukki junni euh, téeméeri junni ak ñaar fukki junni ñeenti junni nee na bi ñu leen examiné trois cent treize daa génn trois treize trois cent treize yooyu génn Moustapha moo génn première di première première yi ñu examiné waat leen vingt cinq génn Moustapha génn ca kaw nekk première yu première yu première yi ñu examiné waat leen cinq génn cinq yooyu génn da nga naan Ibrahima Nuux ni Muusa ni Isa bàyyi Faatuma ne tëll jadul Xasanul Xuseyni muy première yu première yi géeru géer ñi jàmbaaru jàmbaar yi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax sëñ bi sëñ Tuubaa nee na wax wa rayisu kooku mooy njiit lil anbiyaa yi ca ñu yàlla doon déyantal ñëpp ñoo yàlla tegoon loxo ñëpp Moustapha mooy seen njiit Shamsu si sëñ Tuubaa nee na ni jant bi leere bu nee tëll kenn dootul gis dara du biddéew du du weer nee na Moustapha sallallahu alayhi bu ne tëll jant bi kenn dootu ko gis leeru yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi jant bi doon na ñaan borom bi ni yàlla dooma may tew lii may wax nii boo demee ci téere si gis si mi ngi wax ni tamannaw moom jant bi doon na doon na yéene ushayra diyaay un dixième ci leeru yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi leer gi buñ ko xaajee fukki xaaj benn ba ñu jox ko ñu jox ko jant bi kon mustafaa du moromam moo tax Sëñ Tuubaa nee na Shamsu Shumuusi ngoog Shamsu Shumuusi ni jant bi leere ba tiim ñëpp bu nee tëll kenn dootul gis dara làmp yëpp ay fay bidéew yëpp ay suux weer yépp ay suux kenn dootul xool kenn ku dul moom nee na Moustapha bu ne tëll jant moomu ñuy naw dootul doon dara mooy ñaraw njiit yi njiitu njiit yi kooku mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam xayrul anisi mooy ngeen ji wéttal lilaw li yaayi ci wàllu yu yàlla ya gis nga wàllu yàlla yëpp seen seen wéttal mooy yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy central dynamo bi mooy transformateur bi wala yàlla yëpp dinañu màndi ci leer waaye fi ñuy seetloo mooy ci keppaaru yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi moo tax wali yu jamono day seral wali yu jamono mooy keru néew ji doole yi ñëpp fala ñuy wuti ji dafa daw di fa di daw di fa kerlu ji xoolal ñun sunu wàllu yuy réew miskin yi faqiir yi silmaka yi ñii ñi ñi sol mbubb yu rafet ne yugg ci biir nit ñi te mënaluñ seen bopp dara ñépp ci kër kër kilifa yi la jëm jëm pourtant kër ministre yaa ngi fi kër député yaa ngi fi kër borom alal yaa yi borom yaa ngi fi ban kër bailleur ngay dem fekk mu teg mbana mbaa teg bóoli di ko yekk di ko jox ay néew ji dooleeg ay silmaxa yu tooj ci buntu këram xam ni ñii yàlla ma ne na ma gan naa leen sóoraale fan yee paase loo dégg ñu doon wax zéro enfant dans la rue yelwaan yu na fi jóge xam nga kii ramasse kuy yelwaan xalaatul togg ay mbana di leen jox naan day leen place am ngeen añ li ma li ma yàlla wërsëgal xaj ngeen ci xam nga xalaatuloo loolu doo ko dégg doo ko gis ma ngoog mbir yëpp nag mi ngi noonu mooy waaye waliyu seytaane nag gis nga ni yont ni waliyu diine yi am noonu la waliyu bi ndax waliyu seytaane it moo lay xëpp xaalis ak mbooloo jigéen ñeg gone yi dar la foo jëm ñuy yuuxu topp la ñii di daanu ñii di say ki amulu xàmmee nag day defee nii lii ak leer la mbaalu yàlla ànd la fekk seytaane lay jox sa wàll ndax ni yàlla amee wàlli yoom ñii woon leen jëme ci diina ji di leen tàggat ak di faxas seen xol yi ci ay taq-taq ak ràgg-ràgg noonu la seytaane amee wàllu yoom di leen fiir ak di leen mbaal waaw di leen wan lu luxe di leen wan lu luxe bu doon ni mbooloo rek tax ñu xam ni wàllu yu nit ki wàllu yu la wala nit ki cër la seetal rek football bi adduna bi yëpp ay àndandoo même ñi mënta dem seetaan yi sax ñëpp a doog di seetaan <laughs> xoolal làmb ji. xoolal rek stade yi ñuy wootee caaxaan ana kan ci ustaas yi wala ci imaam yi Sénégal yi bu paasee xalif généraux yi te xalif généraux yi sax exception am na ci du ñëpp kan ci ñoom moo ñeme woote ci stade ñëpp ñëw nga ne da ngeen da ngay fayeku ci tribune louge bi cent mille francs couple cinquante mille ba ca bi gën a tuuti nga ci fay ko trente mille francs ñuy dem ba nit ñi amatuñu fu ñu daggee billet mujj nit ñi di mer ñi daw taal seen dañu bis seen kër di ko kar ci tele bi di ko xool mbedd yépp bloqué benn oto mënul dem benn oto mënul te ñëw waxuma la sax ab xalif général woote di laaj paas waaye bu ko defoon gratuit sax du am loolu waaw loolu nga defee lu mu nga defee loolu lu mu seytaane da eh, dafa dafa dafa am lu mu ñaanoon yàlla te yàlla may ko ko nag muy àdduna waaw mooy àdduna eh, kii Michael Jackson ci ñi daan way la bokk nee nañ sax tuub na yàlla nay dëgg mais xoolal na mu meloon ci tur ñii di ko toppandoo ñii dem di opérer seen bakkan ñii ne ku ne bëgg a mel ni moom te waxul yàlla waxul yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax il faut ñu xam ni mag ñii bu nu leen foyee bu nu leen caaxaane nanu fexe ba li nuy jàngal nanu koy béggee noonu di nga waxtaane suñu xol di ci nux nuxi di kontaan ñu xam ne am nanu fu nu jàpp bu noonu nangu it nag koo xamante ne taalibeeb seytaane nga mbaa taalibeeb iblis ñëw def def raaxaloo nit ñi bukki bu sàngoo déru bay nekk ci biit ñi di wane ne julit nga wala ngay wane ne da ngaa baax wala nga wane ne taalibeeb sëñ bi nga te li sëñ bi li ko fal muy alxuraan ak diine jàngoo ko jàngaluwuloo ko dërëm bi nga ci am doo ko ci def doo dimbali kennam doo jàppale kennam te lu mu xewle muy màggal gi mbaa muy gàmm gi mbaa lu mën a doon nga jiitu ji fa dem fa di ko wan ni maa ngi sa ginnaaw yow laa gëm gëm gi du noonu booy gëm nit ki di ko jàppale da nga koy jàppale ci la ko fal ba du daanu président kat ku koy jàppale da koy jàppale pour pour bu demee élection du daanu kon nag loolu loolooy mbir mi. moo tax sëñ tubaa nee na xayrul aniisi kii ngeen ji wéttal li law li yaay ci wàllu yàlla yi mooy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mel dañ ko ne kuy kooku mu ne shifa shuduuri kooku mooy saafara la nekk ci dënn yi ak ak ca xol ya lumb bëgg àddina ak lumb rëy ak xol yu xat ak siis nee na shifa shuduuri ki ko opeere ba génne yooyu yëpp sànni ci àll ba kooku laa lay waxal diyaawu duuri kooku moo leeral capital ya badrul bu duuri mooy weeru badar wa weeru badar ni mu mel fukki fan ak ñeent ba courant amagul ñun clair de lune lañ ko daan wax ci sunu dëkk boo demee taseet clair de lune dañ daan génn bu weer wi tolloo foofu day mel na jant nga ne bu puso waddee sax danga koy gis leer naññ daanaka xaw nañu mën a fanaan ci biti ndax day mel ne ñoo ngi ci bëccëg ndax du ànd ak tàngaay te day ànd ngelaw su sedd ñuy goon naan waxtaan noonu am na ñoon sax ci pénc lañ daan nelawe booba caay-caay yi xew amul yeewe bay jaamu rek dox guddi loolu boobu amul bariwul boobu sëriñ Tubaa nee na weer wu mel noonu ak mbégte moom mu daan def ci xolu ñi dëkk ci àll bi nee na kooku mooy Moustapha sallallahu alayhi weeru ba dara ni mu mel noonu la noonu la mel waaw ci yonent yi mais baadi di baadi diyaa yi moom mooy ki feeñal leeru moo mooy mooy ki feeñal diyaawu leer ga xaysun shakuuri am céeba la céeba moo xamante ne day waral ak cant céebo yow mi xamul céeba Pape céebo mooy bu ndee séentu nawet bi été bi béykat yi xoole seen jiw faraasu seen seen dugub ñii ji li ñu war a ji yëpp di xaar mu taw ñu xëy suba teel wala boog ñu tëdd jant bi so ñu seen xiin wi ñuul kukk ñu yaakaar ni day taw ñu delloo bunt yi toog tuuti ngelaw li riddi mu fanaane taw fanaane taw fanaane taw ba bët set ah loolu yaakaar la béykat yëpp kenn ku nekk geetaru wuti tool ya xam ni bët set na bë bët sebbi na loolu sëñ Tuubaa wax ni xaysun shakuur am ceebo la buy waral ak cant lay sun gaynde la gu tar di dàngañ ca yéefar ya naafin nufuur yi mooy dàq way fipp yi naafin nufuur yi Moustapha sallallahu alayhi wa ko xamul mooy kay dàq way fipp ya mu di xilaam yi mooy feeñal ak noonalam ca yéefar ya fu mu musa taxaw rek yéefar boo taxaw mu feeñal la ngàdd nga daanu waaw moom a maam alaaji maan di wax di feelu sëñ fële naan ko wa bi xayrihi wa bi xaylihi jalabal wara mu ngoog moo tax sëñ bi ne na jannaatu haadin aljana ñeel na way jub ya niiraanu aadin safara ñeel na noonu yàlla ya fal fadlu baadin ngëneel feeñ na lil uqalaa yi ñeel boroom xel ya maayil xataa yi maayil xataayaa koo koy far bàkkaar ya baadir ataayaa koo koy feeñal may ya sunu maam nee na sëñ Mbàkke haadil baraayaa kooku moo jubbanti mbindeef yi bilaa xalaa yi ba ñu ni coow ila siraatil mustaqim jëm ci yoonu siraatil mustaqim lahul baraa ñeel naka ak raw lahu shafaa ñeel na ko ramu ga te mooy rasulullahi sallallahu alayhi wasallam maanaam mu ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kooku mooy jubbati mbindeef yi haadil baraaya bilaa xalaa yi te amul ak càggante amul benn damm-damm jubaltile leen ba ñu jub xocc yàggul mittiwul ndax vingt-trois ans rek la woote bi muy woote am na ñeent fukki at bi ko yàlla di yónni man am na quarante mu def fukki at ak ñett foofii ci màkka di woote gàddaay dem Madina def fa fukki at ak ñaar wala ak benn fukki at ak fukki ans la def mag defii fukki muy vingt trois ans fekki quarante ans muy soixante trois ans lahul baraa ñeel na ko ramm ga lahu lahul baraa ñeel na ko ak raw kooko raw na ak képp ku topp aw yoonam raw nga lahu shafaa ñeel na ko ramm gu mag ga moom rasulullaahi lahu lahu jamaa ñeel nag ahlul jamaa wa sunna ahlul jamaa ak ahlul jamaa wa sunna ñooñu xaawirtiqaa yi ñey sàkku ak yéeg ca seen borom ñooñu moo leen moom ndax ci moom lañuy roy ci moom la ñuy topp kon bu kenn gis nit ku yorub tariqa nga defe ni dundul sunna loolu njuumte la Sëriñ Tuubaa nee na ahlul jamaa wa sunna ñun ñëpp ci la bokk mooy ñey sàkkoo yéeg yegg ci sunu borom subhaanahu wa taala esel bi mooy yonent yàlla muhammad sallallahu kooku na mu ni in raama ilman in raama ilman booy sakku xam-xam fa zaaka yuhdaa mu jox la ko aw raama xunman booy sàkku koom-koom fa zaaka yuhdaa mu jox la ko aw raama zulman mbaa ngay sàkku tooñ lahu wa yurda ñu delloo la sa tooñ rek xoolal wa bi xayrihi wa bi rek baaxi liqaa walla ngay beew ba dajeeg moom bu baa zabi zabi shaqaa yi sa koo beew ba agsi Mustafa kooku nag mooy mooy mooy texee di ñeel na la ndax ku xe ku noonu yonente yàlla ba mu rey la mbaa nga rey gisuñu la mbaaw kon nag yëf yaa ngi noonu ñu teg foofu sunu baaraam incha allah ba ajjuma jeenu jëm ñu door a ñëwaat ak yéen nag euh, ci fi nga xam ne foofu la ñu tegoon suñu baaram jërë ngeen jëf Pape Ablaye Dieye moo nekkoon ci technique bi ñu sant ko baax oustaz Alioune Sall laay bàyyi place bi léegi incha allah bu paree ñu jox sëñ Mbacke Sylla seen mbokk oustaz Alioune Mbaye la woon ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa